Touba ca kanam ci seen i ñaari téeméer yi mu jóg daa dina du ñu seetaan kat mbedd Serigne Touba yi di taa waaye it du ñu seetaan kër sëriñ Touba yi di taa seen ñaar téeméer yooyu mu ngi def liggéey bu am solo fii ci biir kër Serigne Touba gi moom lañ leen bëgg a wan ci système d'évacuation eau pluviale bi nga xam ne ingénieur u Touba ca kanam bi teg nañ ko am na yeneen barab yu fasantikoo yoo xam ne danañ fa dem ñu wan leen liggéey bi nga xam ne ni Touba ca kanam moo ngi koy def waxtu wu nekk waaye dañuy def saa buñ ci tollee rek ñu wan leen ci as lëf ba ngeen xam seen ñaar nu mu barkeeloo dañuy dugg ci biir kër sëriñ bi wan leen li fi nekk wan leen ñi koy liggéey ñooy ñan ak lan lañuy def ci biir ak lan moo tax ñu mën koo def seeni ñaar téeméeri képp la amitu rabbiya bi nimal mawla musalliyan ala lazi bi awla subhaana rabbin xad kafaani jawla waramma qidiya waramma alxawla bi man bi ubbi nasiitu layla wa zaban wa fidatan wa xayla nabi lazi yasuuxu nayla bihi layya wa yaqiinil kayla maa ngi nuyu mbokku taalibe yëpp di leen ziar di nuyu mbokku taalibe yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bii ñu nekk di liggéeyu sëriñ bi di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay euh, xuri Dime laa tudd euh, bokk ci liggéeyu Touba ci kanam bi nekk fi hydraulicienne taxaw di taxawu tamit liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci kër sëñ Touba bi liggéey bi nag aménagement wu kër sëñ Touba bi la tout ce qui est extérieur wu kër kër gi rek Touba ca kanam moom moo koy gérer léegi projet bi trois phases la première phase bi mooy assainissement bi mooy euh, nan la ñuy def ba évacuer au pluviales yi ndax ndoxu taw bi dafi daa taa sonal lool waa kër gi ba ñu bari sax duñu mën a dugg ci bâtiment yi ndax taataaw ndox bi léegi nu ñuy def ba mu évacuer ko ba ndox bi génn léegi dañu ko raccordé ci beneen réseau bu existant boo xamante ni waa Touba ca kanam defaroon nañ ko année dernière foofu lañ ko raccordé muy dem di verser ji foofu léegi euh, ci ci ci euh, comment début début travaux yi tàmbali nañu defoon nañu fuuy bi ba tegoon canalisation wu euh, tuyaux yi des tuyaux de 400 la ñu la ñu teg léegi def nañu fuuy bi ba def nañ yi ba pare léegi fi ñu toll nii moom mooy regard yi la ñuy euh, construire construction des regards lañ toll ba ñu ngi presque à trente pour cent wala vingt cinq pour cent ci euh, état bu construction wu regard yi bu nekkee deuxième euh, état volet bi moom mooy voirie bi ak aménagement extérieur u kër gi loolu tollaguñ fa dañu bëgg comme nawet bi day bëgg a jub si muy hivernage bi bu ñu paree ci loolu rek jublu ci aménagement bi ak voirie bi entrée bi ay euh, récupérateur ñoo fa nekk maanaam des caniveaux avaloir yoo xamante ni ndox bu ñëw rek bala moo dugg ci biir kër gi ci caniveau bi moo koy récupérer daal di koy verser ci regard bi regard bi yóbbu ko ci euh, euh, kii ba bâche bi bâche à bi pompe ko mu dem ci réseau wu bi ndax li ñuy liggéey fii moom la waa ONAS di liggéey te waa ONAS daanaka ñoo représenté euh, état ci lépp lu jëm ci assainissement ak ndoxu taataawu ndoxu bu salte ci dëkk yi léegi ñun du ma ni dañooy tollook ñoom waaye daanaka li ñuy def ñun ñi ngi koy def ndax ñun ndox mu taw la ñuy gérer eggaguñu nag ci ndoxu bu salte ndoxu foos waaye ñi ngi gérer jéem a def ba ndoxu taw taw yi taa ci koñ yi nu ñu def ba évacuer ko ba du sonal waa koñ ba Euh, ñi ngi ciy def lu ñu mën nag waaw ndax bii du suñu premier projet defoon nañu penc mbay wàdd ak axe Shell bi ak axe résidence bi waaw defoon nañ ko te y avait tamit comme tokkoor ba récupérer nañu foofu yooyu yëpp defoon nañ ko macha allah moom man kay damay sant murid yi di leen gërëm ci seen taxawaay ndax bu dul woon seen mille francs yi ñuy joxe lii lépp du am waaw yàlla nañu sëriñ bi gën a taxawu rek waaw gën ñoo ndamal ci liggéey bi